war na mën a tax mu ruus di def yenn snap yi di ko sànni Mhm. mais Ziguinchor ba li ñuy des euh, ba léegi parce que Ziguinchor tamit euh, jamono ji mën nañuy wax moom mooy capital bu Sénégal ndax bët yëpp. ko toxal dañoo toxal capital Sénégal yóbbu ko fi nga xamante ni moom moo di Ziguinchor. parce que Ousmane Sonko moo dem toog di Ziguinchor ñëpp euh, maanaam braqué seen ay regard jëmee ko fi nga xamante ni moom moo di Ziguinchor ñu ñu gis benn communiqué bu génn démb jóge ci ministère de la santé de l' éducation ñu dakkal cours yi nga xamante ni ñoom ñooy am ci région bu Ziguinchor. Ziguinchor euh, du vendredi au jeudi cest di dire de, de, de, du vendredi à huit heures euh, euh, ba jeudi à huit heures donc mu nekk loo xam ne si ni tamit dañuy suspendre cours yi ci ci ci région bi yëpp li ko waral nag mooy tension yi nga xam si ni moom moo am moo am ci région boobile Fatou jàppaloo ni ñu bëri nag am ñi ci gis nii nga gis ni ni mardi bii di ñëw moom mën na mën na mën na takkarnaase comme ni mu meloon ci semaine bi ñu génn ñu ne sax li ñuy jëli Ousmane Sonko moo tax ñu arrêté yenn cours yi. waaw am na ñu koy wax mais loolu moom je pense que euh, ñoom peut-être ñi koy wax naan peut-être euh, dañuy arrêté cours yi dañoo bëgg ñu kenn génn parce que dañuy préparer def Ousmane Sonko dara wala dañu ko préparer jëli ñu nag ñoo bokk si ñi nga xam ne ñooy ñooy yee fitna ci réew mi. Mm-hmm. parce que interpréter baaxul. interprété baaxul li am Ziguinchor nii ku ko gis xam ne war na mën a tax ñu def communiqué téye élèves yi tey xale yi seen kër yi. Mm. c' est pour c' pour plus de sécurité. Mm. téye xale yi seen kër yi ba lii lépp romb su lépp paasee ñu xale yi doog a génn jàngiwaat parce que tamit wóorul gis nañ fi ay xale yoo xam ne barki dem moo sa mujj dóor bal nga dee lan la ay mbokkam di wax dafa jàngi woon dafa defi woon cours du soir dafa lii dafa laa donc euh, c' est bien. ñu def communiqué wax ni élèves yi nañ toog école yi nañ ko tëj ba lépp jeex lépp am parce que jàmm tamit si lépp xaj bu jàmm amul xale yi lan la ñuy jàng lan da ngay génn xale fu muy aw pour dem jàngi donc nii ñi moo baax ñi nga xam ne dañuy wax naan nag voilà su dañ koo def parce que dañoo bëgg jëli usmaan Sonko su ñëwulee dañoo bëgg jëli ko balaa mardi lu nekk ñu ngi koy dégg. man lu nekk dégg naa ko si diggante bi communiqué bi génnee démb à travers des statuts nit ñi nañu bàyyi des statuts di wax lu leen neex di joxe seen ay xalaatu bopp ñoom xamuñu lan moo nekk ci ci ci ci ci affaire yi dëgg-dëgg fii lañ nekkoon mardi passé ay mandat damm ne ay prise de corps dañ koy jëli dañ koy li li am buntu kër Sonko li am koñu këru Sonko yëpp wax yooyu moo ko andi te pourtant boobu ba léegi gisaguñ fi mandat d'amener gisaguñ fi prise de corps gisaguñ fi benn yoon yoon def loo xam ne day niroog dem jëli Ousmane Sonko. Mhm. donc nañu moytu tamit di interpréter yenn interprétation yi loolu mooy jaxase xelu nit ñi andi leneen ak leneen ak leneen c'est bien normal ñu ne élèves yi nañ parce que Ziguinchor actuellement gis ngeen li fa am. Mhm. ko bi fi mu na calme yal na continuer mais gis ngeen li fa am depuis deux jours ou trois nit ñaa ngi xeex fu nekk nan la élèves yi di génnee di jàngi dañuy wax communiquer xale yi nañ toog ba lépp dal lépp dalee ñu dem jàngi. c'est mm. mieux. d'accord Moustapha ci communiqué bi ñoo ko noo ko jàngate waaw c'est ñu tëj école yi pendant mm, presque euh, trois quatre jours. Euh, presque une semaine day wax. Mm-hmm. parce que mais c'est regrettable Mahfouz parce que lu tax c'est regrettable. mooy euh, système éducatif bi ak euh, économie informelle bi ñoom ñooy payer le plus lourd tribut ci coowal Ousmane Sonko Macky bi mhm. ak yi nga xamante moo am ñoom ñoo ci gën a sonn mhm. parce bëri na ñoo xamante ne ñu toll tey na mhm. amaana am nañu waroon naa dañuy dañuy dañuy voyage bi teg ci suuf parce que semaine bii ak bii ñëw dara wóorul bii Ziguinchor kon du dugg Ziguinchor xaw lan moo fay am donc euh, sur le plan touristique da leer ne hôtel boobu mu jàkkaarloo tey di nit du fa nangoo dem dëkk mbirum logé fa parce que da naan xaw ma lan moo fi amee suba yooyu yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne pour man war nañ ci mën a demee ndànk-ndànk loolu c'est très important parce que xoolal léegi dafa am lu lu ñu commencé di banaliser. mooy à chaque fois procès amee rek nga gis ñu ne Jakarta man du ngeen daw démb yaa ngi sa sa càq-càq bi li mu fi doon wax. Mm-hmm. naan saa yi kañ ngeen may dénk micro yi moom ñun dañoo sonn. Mm-hmm. saa bu affaire amee journée démb bi dafa dee noonu quoi. mais ci ñoo xamante ni journée boobu la am amaana kii pour jox yaayam kii pour jox papam kii pour jox soxnaam mu dépensoo mm-hmm. a dawaat sa ëllëg sa pour am dépense bu mais mais en fait dañuy dañuy créer ay frustration yoo xamante ni ñenn ñi comme ni ko papa ji ki ki ki décédé euh, Kër Mbaye Fall waxee. Mm-hmm. mais dañuy dañ leen di renvoyer dos à dos ñenn ñi noonu la ñuy def dañ naan Ousmane Sonko et Macky Sall duñ sax tuddee euh, Adji Sarr ñooñu. dañ naan ñoom ñaar la parce que à chaque fois problème amee rek soit da nga naan kii la soit nga ne kële la mm-hmm. donc ñoom ñaar ñoo tax liggéeyu ma ñoom ñaar ñoo tax lii am donc pour man war nañuy gën a mën a def ndànk ci nit ñi ci par rapport ak yenn mesures yu ñuy jël ak yenn décisions yi gis nga am na loo xamante ne nit ki bu ko bëggee def yaakaaruma ne ci bés ba wala ci veille ba nga koy defee am na nag ñoo xam ne dafay baax nga jël ay mesures prudence ak yooyu noonu mais parfois yenn xaabaabale dafa ëpp bi Covid bi ñëwee dafa am docteur euh, Thior bu ma déggoon mu wax lu am solo mu ne parfois on aime importer la peur. Mm-hmm. maanaam parfois dañuy bëgg di jël tiitaange keneen. ñu mm-hmm. ñu gàddu ko indi ko teg ko suñu kaw. Mm-hmm. maanaam kër gële tiit nañ rek man ma tiit ba dootuma reer ak dootuma lekk du ma naan war a taxaw ma xool kër gële nan la tiitee. lan moo ko tiit naka la def tiit ak tiitaange bi fu mu ko jëmee parce que souvent dañ lay wax ne boo tiitee sa réflexion moo ko nga mer ñooyam mhm. toujours réflexion yi nga def la yóbbu ci excès soit da nit ku tiit tëb loo xam ne dañ naan boo paree naan li yaa nga ne tëbuma ko xalaat moo sama détente toll na fii mhm. parce que dafa tiit mhm. wala nga mer saaga nit saaga bu ñaaw boo xam ne dañ naan saaga bi nga ko saaga nga ne man musumaa ñaawee nii laa mel mhm. kon li maa ko wax wala du maa ko wax donc dafa lay yóbbu ci ay réaction yoo xam ne dafay dem toujours vers l'excès loolu moo tax parfois daf dafay baax ñi am tuuti lu ñuy wax retenu par rapport a banaliser yenn couvre-feu vingt heures mhm. vingt trois heures état d'urgence yoo xamante ne après ñëpp xam nañ ne ce n'était que du topp benn njëriñ pratiquement ak xeex bi ñu ko doon xeex mhm. parce que gis nañ bi ñu restriction yi euh, ca la jàngoro jaaree fa sax dem yoonam kon je pense que ñi ñuy gouverner war nañu gën a mën a xoolaat par rapport à certaines mesures boo delloo si njàng mi njàng mais une semaine sans cours mais loolu Sénégal ak lañ ko ñemee def ci ci mais benn fanu cours rek mais ñooñu une semaine fan lañ koy rattrapé duñ ko rattrapé. Mhm. dëkk boo xam ne chaque jour dañuy sauver école chaque année dañuy sauver l'année scolaire dañuy sauver chaque année. Mhm. Mhm. te moo boobu nit ñi duñ ci bàyyi xel sauver maanaam lu nar a faat chaque année année bi école bi day faatu léegi en plus des grèves ak yooyu yëpp nga bëgg cee dolli ay bés yoo xam ne duñ ko jàngati. moo tax quantum horaire bi toujours pour ñu atteindre ko jafe-jafe lay doon. Mm. niveau élèves yi di gën a wàcc. Mm-hmm. njàng mi naka sudul noonu. Mm-hmm. donc dafay indi rek problème bi nga xamante daal dafay gën a renforcer jafe-jafe yi. Mm, dafay gën instant bi fin d' année lañ nekk. fin d' waaw parce yi ñu ngi nekk di di préparer deuxième compo ñu di préparer troisième compo donc. Mm-hmm. dafay dafay dafay compliqué en tout cas mm-hmm. loolu moom mooy communiqué bi nga xamante ni académie bu euh, fële nga xamante ni moom moo di Ziguinchor euh, moom moo ko moom moo ko def inspection donc euh, mu nekk loo xam ne si ni jaaxal nañu bëree bëri par rapport ak jour yi nga xamante ni jël nañ ko daanaka une semaine jeudi 25 le ci région bu Ziguinchor li waral li ñu mel nag mooy tension yi nga xamante ni gis nañ ko foofu ci mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko daal di nekk jamono ji foofu nga xamante ni moom moo di Ziguinchor mu nekk fa.